يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokki jullit yi yëpp ñu mën a nekk di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko gannaaw loolu mbokk yi jamono ji ñuy dund ak ci waxtu yi ñu nekk koo xam ne def na ak taxawuk seetlu dana gis ne coow yi bari na lool ci téere bi ñuy wax taqdisul ashxaas fil fikri suufi te kenn ci waa réew mi bind ko di cheikh mohammed ahmed lo xafidahullahu taala waaye sax kuy seetlu bu baax day jàpp ne téere bi xëy na fan yi lañu ko bind walla bi ñu ko bindee léegi matul at ngir bari coow yi fekk na téere bi bi ñu ko bindee léegi jege na fanweeri at xanaa kon téere bi téere la boo xam ne bu yàgg la kon ana lan moo waral yëngatu ak coow yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci téere bi lan moo ko waral waaye it bi téere boobu lan moo fa nekk waaye it yan la borom téere bi yan référence si la sukkandiku ak ci ban xalaat ci la sukkandiku ba bind téere bi yooyu dañ see bëgg a def am njàngat incha allah ci fan yi nga xam ne moom mooy ñëw jàngat bu njëkk bi nag mooy téere bii di taqdisul ashxaas fil fikri suufi mën nañu wax ne téere la boo xam ne li ko tax a jóg mooy critiquer dara ci ay xalaat ak i jàngalin yoo xam ne lu ca bari dafa uutee ak li nga xam ne moom mooy njàngaleem lislaam mu wér ni ki nga xamee ne wootekat bu nekk ak boroom xam-xam bu nekk sañ na xool yi nga xam ne gis na ko moo xam ay pas-pas la walla ay jëf yoo xam ne dañ koy jëf mu am ca loo xam ne dafa wuutee ak njàngaleem lislaam mu wér mu leeral ko loolu bindkat bu nekk sañ na ko te it dinaa ñëw ci kanam ne ñu baree bari def nañ loolu ci ay boromi xam-xam loolu moo tax borom téere bi moom leeral na bu baax a baax a baax li nga xam ne moom moo ko tax a bind téere bi loolu mu ngi ci muqaddima bi mu defal ko unwaan boo xam ne mu ngi ko tuddee amma limaada yuktabu fi misli haadihi almawduaati fi haada alwaqti bidaat noonu la ko defee laaj lana war a tax ñuy bind ci mawdo bu mel nii tem bu mel nii ci waxtu wi ñu toll mu gis ne foofu lislaam kat jamono jii am na ak xefeet goo xam ne mi ngi am ci ndaw ñi ak ci jàngkat ñi boo xam ne bu am solo la ndaw ñaa ngi jokk wutali lislaam waaye jullit ñu bari sax ñu ngi jokk wutali lislaam wutali dund seen diina loola nag war a doon loo xam ne dañ koy tabax ci pas-pas boo xam ne bu wér la pas-pas boobu bindikat bi gis ne ñaari mbir la aju woo benn bi mooy ñu seet li nga xam ne mooy ndonoon lislaam ak njàngaleem xalaat yi nga xam ne dugg na ci te doon xalaat yoo xam ne dafa uteeg njàngaleem lislaam mu wér te loola am na ci téere tafsir yi am na ci téere taarix yi am na ci téere siira yi am na ci téere yi nga xam ne day nettali xare yi ci ay mbir yoo xam ne ay israiliyaat la wala ay mbir yoo xam ne wérut wala ay gis-gisin ci fiq yoo xam ne la ko gën a dëgëran fa wala téere yi nga xam ne mooy téere suluk yi di yitte woo wàllu yar bakkan am na ay mbir yu fa nekk yoo xam ne yu ajo tasfiya la yu ajo seggaat ak deferaat ko la loola mooy benn bi ñaareel bi it fexe ba nga xam ne ndaw ñooñu dañoo jokk wutali lislaam ñu fexe seenum njàng ñu teg ko ci foo xam ne fu dëgër la teg ko ci ndono loo xam ne lu set la waaye teg ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nag gis-gis boobu nga xam ne mën nañ koo tuddee an naqd mën nañ ko tuddee critiquer loo xam ne jàpp nga ne yow dafa uutee ak njàngaleem lislaam moo xam ne mu wér la loola sañ-sañ la ci képp koo xam ne boroom xam-xam la waaye yaakaar naa ne it képp koo xam ne deferkat la sax loola du ko mën a ñàkk a def rawatina bi nga xamee ne téere lislaam yi ak njàngaleem ci jamono al abbasiyin wala al amawiyin ñaari état yooyu lu baree baree bari dugg na ci ci civilisation réew yi nga xam ne duuñu ay jullit lu bari gannaaw bu ñu tarjamaa seeni téere dugal ko ci biir téere yi lislaam yi ak ci biir njàngaleem lislaam yi te ñooña kat lu ci bari dafa utee ak njàngale moo xam ne njàngale mu wér la mi lislaam di jàngale kon borom téere bi leeral na bu baax a baax lan moo tax mu bind téere bi mooy ñaar yooyu am solo gi nga xam ne am nañ ko solo looloo tax mu bind téere bi kon critique boobu nga xam ne moom mooy jubluwaay ci li nga xam ne moo xam ci téere yu mu mën a doon rawatina ci lii nga xam ne moom mooy tasawuf moom itam am na ci njàngaleem tasawuf loo xam ne yaakaar naa bu ñu ko tuddee sa kanam dana leer ne waxuma sax ñi dul ay sufiyanke waaye sufiyanke yi ci seen bopp kontoor nañ loola te itam jëmale nañ si ak critique goo xam ne gu dëgër a dëgër la te loola bokk na si ñi nga xam ne critique googu jëmale nañ ko si ñoom ku mel ne Hallaaj wala ibnu Arabi wala ibnu Sabiin ibnu Lfarit wala Tilmisaani ak ñeneen ñu dul ñoom ñoo xam ne ñu bari ñu nekk ak ñoom ci tasawuf sax nanguwuñ seenum njàngale am na lu bari loo xam ne dañoo jàpp ne lii kat wax dëgg yàlla dëppoowut ak xalaatu lislaam te ñooñu ay sufiyanke lañ kon nag ku nekkut ci biir loola ndegam ñi nekk ci biir loola ñoo am sañ-sañ critiquer ko kon ku nekkut ku nekk ca ku nekkut ca biir loola moom itam am na sañ-sañi critiquer yu mel noonu moo tax soo demee siyaru alaamin nubala ci xaaju fukk ak ñeenteel bi ci page 314 da nga fekk foofu alimaam addahabi wax ci xallaaj ne wa tabarra'a minhu saa'iru suufiya wal mashaayixi wal ulama لما سترى من سي من سوء سيرته ومروقه ومنهم من نسبه إلى الحلول ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة والزر والزوكرة وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال وانتحلوه وروجوا به على الجهال نسأل الله العصمة في الدين maanaam mu wane ne ci gàttal li ma wax noonu imaam Zahabi daf si wane ne xallaaj am njàngaleem ak doxalinam ñu baree baree bari ci borom xam-xamu sufiyanke yi kontoor nañ ko te critiqué nañ ko kon loolu yàgg na fi dañoo bëgg a wane misaal rek waaye am na ñeneen mën nañ ko indi si ibnu arabi mën nañ ko indi si ibnu sabiin si tilmisaani ak si ñeneen ñoo xam ne même ñi bokk ak ñoom ci tasawuf critiqué nañ méthode bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu seen doxalin ci tasawuf niki noonu boo ñëwee fii ci réew mi it di réewu Sénégal fekk nañ kenn koo xam ne boroom xam-xam bu mag la ñu koy wax Cheikh Ahmed Dem mu dëkkoon Sokone Cheikh Ahmed Dem moomu doon na dund ak aw nit woo xam ne lay seen pas-pas te ñu ko daan béral sa jamono jooja mooy dañoo gëm ne ku nekk yàlla la te loolu pas-pas la boo xam ne xam ngeen ne pas-pas bu doy waar la waaye Cheikh Ahmed Dem bi nga xamee ne d'accord ci xalaat boobu dafa bind téere boo xam ne dafa critiquer xalaat boobu ak njàngale moomu tuddee ko tanbihu al aghbiya wane ne gis yàlla ci àdduna mustahil la maanaam lu jomb la nekkut loo xam ne lu mën a nekk la kon loola it la muy firndeel mooy critiquer loolu moom yàgg na fi te it duut ay bu benn yoon su ko defee nag kon dañuy xam ne lépp loo xam ne xam-xam ci la tegu ku ko bëgg a génne walla nga bëgg koo weddi daa war a doon loo xam ne danga koy teg ci xam-xam waaye su fekkee ne defuloo loolu su boobaa kat yow ci sa bopp nar ngay sonn waaye nar ngay sonnal itam ñeneen ana lu waral loolu mooy téere bi di taqdisul ashxaas téere la boo xam ne ki ko bind dafa dellu ci ay maraaje ay référence yoo xam ne mu ngi ci suñ kanam référence yaa ngi ci suñuy kanam mu ngi ci maktabaati mu toxal fa toxal goo xam ne benn sos amut ci référence yooya nga xam ne seeni wax lañu jël daal di ko toxal te moom borom téere bi leeral na loolu ci juzu bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi si paasu 19 si manhaji fi hada albaxth mu ne lamma kaana afdalu tariqin lilxukmi ala taifatin ma huwa alictimaadu ala alaraai والأفكار التي دونوها في كتبهم المعتمدة فقد ركزت في الأساس في نقل الفكر الصوفي وعرضه على أكثر مصادرهم شيوعا وانتشارا مع عدم إهمال مصادرهم الأقل شهرة إلى آخر ما قال فوفا دفا وخني بيغا خاميني ماندوتي موي بيب اب كوريل بو خامني دنگ لينا بeuga atté wala nga bëgg leen a toxalal dara nee na la ca gën mooy nga sukkandiku ci seeni xalaat ak seeni gis-gis ya nga xam ne bind nañ ko ci seeni téere nee na loola moo tax ma sukkandiku ci fondement wu mbind mii may bind pour toxal lenn ci xalaatu a suufiya ma sukkandiku ci seeni référence yi nga xam ne ñoom ñoo ko bindal seen bopp waaye nag yi ca gën a siiw nag ànd ak ne ya nga xam ne siiwut sax nee na lu ma leen waaye yi sa gën a siiw nga xam ne bu toxal jotee su ma toxalee bi wasaata maanaam jëlee ci ku jëlee ca téere booba dama fekk ne manumaa yegg ca téere jooju téere booba nga xam ne mooy ndey ji benn nga xam ne dañ koo móolut wala nga xam ne leneen moo ci xew ba tax na manumaa dellu ci ndey ja su boobaa ma daal di toxalee ca ka nga xam ne moom moo toxalee sa téere booba ma ne kon yaakaar naa ne loolu mandute rawu ko mandute passé wu ko looloo tax nag kon ki nga xam ne dafa jóg pour am beneen xalaat ci téere bi dañ koy wax benn ne ko lii nga xam ne moo nekk ci téere bi li ci nekk commentaire bari wut la ca ëpp yépp lum doon lu ñu toxal la ci ay référence te référence yooyu mu ngi ci suñ kanam lu tee ñu dellu ca beneen bi mooy comme lii dañu ko bind teg ko ci xam-xam ku ko bëgg a weddi lu tee mu bind lu mel ni li ñu bind nii ndax kat gis nañ ne téere bi depuis ñu bind ko comme ni ma ko waxee ak léegi man na léegi daanaka fanweeri at te ba léegi gisuñu ku bind pour tontu téere bi loola lu muy tegtale benn gisoon nañ koo xam ne da doon jéem a tontu ci téere bi waaye lim ci bind matut cent pages wala si lay toll daanaka téere boo xam ne nag mille pages la nga di ko tontoo cent pages loolu wane na ne tontu booba méngoowul ak la ñuy tontu waaye méngoowul tam kay ak ka ñuy tontu ànd ak nag ne la nekk sa tontu ba ci ay xeeti wax yoo xam ne yu ñaaw la ci ay saaga ak yu mel noona yépp kenn xamul nu mu em ni ki nga xamee ne noonu lañ gisee si jamono ji ñuy wax ne ah téere bi nañ ko génnee ci biir réew mi téere bi nañ def nangam borom nangam wax yu bari yooyu yëpp loola la muy tegtale ma ne damay wax ne loolu méthode la boo xam ne méthode firawna la méthode firawna mooy firawna ba mu débaayee ak Moussa Moussa géñe ko ci ay lay mu xam ne amatut ay lay yoo xam ne mën na ko teg dafa daal di jóg ne daruni aqtul Moussa xaar leen ma ma rey ko waaw daruni aqtul Moussa xaar leen ma rey Moussa loola nag ba léegi am na ñoo xam ne mooy seenu méthode nañ togg ay tuuma nañ sos ay wax nañ jël ñi nga xam ne xamuñu jànguñu ñu xiir leen ci kaw borom téere bi ne moo wax lii moo wax laa te fekk ne ya ñuy wax noona dara wéru ci la ca wér loola amut benn relation ak magi réew mi amut ak ñoom benn relation ndax am na ci ay pas-pas yoo xam ne te danañ ñëw ci biir téere bi tudd yooya incha allah pas-pas yooya suñuy magi réew dañ koo dàq te gëmuñ ko maanaam gëm ne lu ne yàlla la ab xaj yàlla la ak golo yàlla la mbaam yàlla la loolu suñuy magi réew walilaahi alhamdu wal minna gëmuñu yooyu pas-pas yooyu gëmuñu ko am na yeneen mbir yoo xam ne mu ngi ci biir téere bi yoo xam ne yooya amul benn relation ak suñu magi réew ndax yàlla musal na leen ci façon pas-pas yu mel noona kon nag comme ni ma ko waxee rek incha allahu tabaraka wa taala si fan yi ñëw nii ci kanam li ñu bëgg mooy def am njàngat ci téere bi nga xam ne mooy taqdisul ashxaas fil fikri suufi def ay taxawaay ci ay buntam leeral ko ba nit ñi mën a xam téere bi lan mooy li nga xam ne moom moo ko tax a jóg ak it yan problème moom la téere bi bëgg a régler su ko defee su ngeen ñu toppee rek incha allahu tabaraka wa taala ci fan yi ñëw su boobaa dana gën a leer wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu